bismillahi rahmaani rahim xarum tabaski bu mu am sikk yi limal tama wax la na nga ndaw yow béjjën dammu tase dul bu mu am sikk yi limal tama wax la nanga nga ndaw yow béjjën bu dammu tase dul te itam nopp bi di xar bu mu këtt te itam genn bi bum di dagg da jàppal bu mu fër yow tayit na xar mi di wax mbee bu ko dul def xamal ne xar mi de baaxul te namat at bu dee ne xar mi de laa wax wala sax yow mu manqué ñeent valable ñeenti weer te bu dee béy na at mi toftalu ciy weer te bu dee nag la ñaari at na toftal la mu taftal de moo di weer walla ay fan te gëléem yow juróomi at lañu leeral ku amul yéen muñ te dellu ci yàlla di ko tuubal ci bis bu set di ko wéetal di ko tuubal ci bis bu set di ko wéetal salaamaaleykum wa rahmatullah lu waay def boppam